ok Sénégal yéen a yéen a gisandoo loolu tey nag moom dañoo ñëw ba Allemagne waaw particulièrement nag ñu ñëw nag ba fii nga xamante ni si mooy Bremen jàkkaarloog Adamo uniquement pour waxtaan ak moom sama gars yi mi ngi nii maa ngi nii Adamo ngi nii li ci des kenn du ko nettali kenn dañ ko bàyyi mu waxal boobu mais Adamo noo def. Grand Assane maa ngi kool mbaa ngi am jàmm naka dëkk bi ñu ngi sant bu baax maa ngi am contentement bu baax ci yow ci teew bi nga teew ci dëkk bi nga wàcc si ni jërëjëf gis naa la bëgg na ndax ku nekk xam ne na yaa ngi toj infidèle ndeysaan te yaa ngi def lu am solo ndeysaan ñoo ko bokk rawate na ku yaru ku baax ndeysaan ah yow kooku yow dal la rek lan man ñoo ko bokk mu tombé nag sénégalais yi yónni ma ma ñëw am ay ñaari baat ñu ci war a waxtaanee mag yow mu doon lu doy waar Adama doon koo xamante ni si ñëpp xamoon nañ ko ci li mu nekk woon indee mu saaga la ndey indee mu wax lu ko neex indee mu def lu ko neex dëgg la ñu dem ba ci biir Adama nga jékki-jékki changé donné mais donné boobu nu mu demee da nga ragal gars yi kekk sa passe waaw donné xam na Adama mu saragal parce que Adama lépp lu Sénégalais yi di làq ci suuf rek moom day ñëw ne ko tëll ci kaw ba àdduna bi teg seen bët. loolu def naa ko deux mille dix neuf ba deux mille vingt deux loolu deux ans la. te ba ma ko dalee def ba tey defe naa ne maa ngi am jàmm. léegi nag dama dem ba deux mille vingt trois ma xam ne système bii nii du système buy continuer ba ma daan génne affaire jigéen ñi dama bëggoon jigéen ñu baax. léegi dem naa ba defar loolu parce que jigéen ñi ragal nan tey ji koo woo appel vidéo ne ko damaa bëgg ma xool rek loolu parce que jigéen ñi ragal nan tey ji koo woo appel vidéo ne ko damaa bëgg ma xool man lay xalaat ma xool la ma xool Ana Ndiaye wala noo ko tuddee baax na yow yaa ngi dégg uh-huh. danaan la Adamo lay xalaat léegi nag comme que loolu am na ba ma xam ne man ñii wax dëgg yàlla leçon bi ma bëggoon jàll na mais sa waaye baal ma jël beneen yoon parce que loolu du luy ko Adamo hmm. waaw loolu jaaxaloon ma mais léegi bon li nga expliqué neex na dégg quand même parce que vraiment looloo taxoon jóg 2023 mhm. jot nga ne da ngay soppeeku mais soppeeku bi fi nga ko jaarale mu yéem Sénégalais yi mhm. mooy dañu ñëw ba nga xamante ni si ñëpp xam ne Faramareen bi Wally Seck rek nga bëgg kenn du ko dindi doo ko weccoo kenn mukk ci ànd Sidi Diop ñëw mhm. nga clash ko deux jours ñu tourné gis la Pape Diouf ñu tourné bàyyi naa li may def jubale naa gars yi Adamo loolu lan la ragal la wala lan la wala lan la wala lan la expliquer mu leer ok parce que dama dem ba xool su ma jàngee wàll jàng Sidi Diop Sidi bu dajeeg Waly ñoom ñaar dañuy saafoonte nuyoonte comme ay frère Pape Diouf bu dajeeg Waly sekk noonu Waly Pape Diouf Sidi Diop kii noonu léegi ñu man boo fi nekkee di xas kii di xas kee te ñoom ñaar ñi ngi bokk ndey ak baay loolu amul sens xam ku ñëpp xam na ne Faramareen laa mhm. Waly sekk laa bëgg mhm. yaa ngi dégg mais teewul di Sénégal la mhm. parce que Europe bi ñu booy xool ñun ñoo fi nekk de ah, ñu leen amul keneen man popo gars yi amul ah, keneen léegi nag fii Seydi Diop bu fi ñëwee bu amee ndam bu demee Sénégal du wax ne am naa ndam moomu groupe am day wax ndamu Sénégal laa indi drapeau Sénégal la mais Sénégal dañ ko war a jàppale ak Pape Diouf samay faree lañ ay nit ñu baax lañ dama toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ba ma dama yoo xamante si nii mën na sensé lu bëri te loolu mooy dëgg waaw kay faramaaren gi kenn du ko dindi mais dootuma xasati kenn man aadama ma saagaati benn artiste fi ma nekk laay nekk maa ngi ci gay laaw ñëpp kon ñoo ko dégg noonu ngi nii tungu na du tegu kontaan naa merci la muy wax mat na. kontaan naa kon sénégalais yi ndekete Adamo du dof jegewul wul jegewuma dof ak muy judd dof juddu wu ci. mën naa leen a jaay ñoom kanta dof te bu rombee dof du ko nuyu. waaw yam leen nekk nit Adamo ngi nii def na li muy def. Mm. gars yi croix la woon passé le présent. kontaan naa jaajëf gars yi merci beaucoup.